après lii yëpp soxla naa ko dégg nga. waaw. bi moom Mbaye junior yi noonu Mbaye Gueye fi mu toll loo yëg. waaw sant yàlla ak ndama ah. ak moral bu baax ah. waaw. fi mu toll kenn jàppale ci musique man loolu ko calculé sax damaa gëm sama bopp. di sant yàlla ànd naa sama ñaanlu naa ñëw naa. baar bu siflee daal naa def fulla ak fayda. tey tey tey bés bu lan la laaj. moom lu mu laaj léegi jeex na ndam rek ah. waaw lu mu laaj nag xeexoon da ngay bëgg. non am naa yaakaar naa xeex. kon baax na. Mbodj daa mel ni da ngaa liw. ah <laughs> yàlla dara. yàlla béykat yi daa mel ni noppi na de. waaw man pare naa waaw. waaw ah, lu ci def. waaw yàlla rek moo doon incha allah kàttan yàlla waaw. combat bi dina am xeex. lu mu laaj rek man xale laa man xale bu ndaw laa amul métti am muy ragal suñu borom bi déggoo noonu sax. xam nga li naturel ci moom. billaay wallaay. kon baax na ci kanam. waaw ah, incha allah yëpp la nii. Amy Ndiaye Baydi. Amy Ndiaye Badji. Khady Aaj. et l' ensemble de délégation de Sébikotane. ñoom ñëpp ak Xaadim Ndiaye tey ñoom ñoo ñëw gunge ki nga xamante ni moom mooy Mansour Sarr Mandaw Ciss tamit moom ci maire bi la bokk mais ñu ngi may xamal ni le premier magistrat de la commune de Sébikotane moom tamit délégation egsi na ah délégation ki ko jiite mooy Yarba Ka ah ak waa Sonac ñiy defar peinture léegi nag balaa ñuy jëm ci drapeau bi Mansour Sarr tey dafa bëgg a décorer ki nga xamante ni moom mooy Assane Ndiaye ndax nag c'est vrai que ni il faut rendre à César ce qui appartient à César si bi xotaan ni mu toll. Mansour Sarr mi ngi ci ginnaaw Ablaye Lo nee na dañ koy ñaanal Mansour Sarr mi ngi ci ginnaaw ablaay Lo ñu bàyyi ko xel léegi nag ñu jox tableau bi Mansour Sarr mu décorer ki nga xamante ni moom mooy Assane Ndiaye. Black Power moom tamit mooy sponsor officiel te moom moo gunge. Assane Ndiaye boor production tey ci journée bi boisson boobu nga xamante ni dafa am solo ñàkkoon naan wuurul ak weeru koor gi nu ne. ndeysaan mais mais mais c'est vraiment beau lii dafa rafet yow lii dafa rafet tablo bi rafet na. jaajaa eh gars yi jël leen photo yi ana caméra yi. dañ ko juutal ah. ko juutal nañ ko tourné. dañ ko juutal tabla bi. non non non na demaat ah, waaw kay. ok. macha allah léegi nag. daal ma jox parrain bi mu am ay kàddu yu mu ci sànni. ah. Euh, jaajëf asalaamaaleykum maa ngi nuyu bokki Sébikotane yëpp. di jiital ci nuyoo bi nag Mansour Sarr mi nga xam ne moom lañ jaglelee bis bi tey di nuyu tamit Assane Ndiaye production di rafetlu sa taxawaay di nuyu aussi tamit le premier le deuxième adjoint au maire de Sébikotane ba ñu ngi lay nuyu di nuyu l'ensemble des responsables yi fi teew yëpp di kontaan si li nga xam ne def ngeen ko fii ci suñu dëkk muy Sébikotane kontaan nañu ndaxte Mansour saar merito na lu ko ëpp ndax lan moo tax mari ma ni mérito na lu ko ëpp dafa doon nit koo xam ne dafay def ci social di def ci ndaw ñi di def ci jigéen ñi di def ci dëkk bi yëpp nga yoo xam ne ñoo ëpp yi fii ci Sébikotane jërë ngeen jëf di di remercier délégation bi yëpp may respect rek di yëgali nuyoo bi suñu service social donc xam nga ne amoon nañu président di rafetlu cérémonie bi te di wax ne rek suñu kalaat ñun ko bokk rek mun si Thank you. mbokk yi ñaari mbër yaa ngi ci digg géew bi combat bi dox ci diggante Boy Baldé ak ki nga xamante ni mooy Mbaye Guèye Junior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 fàq na ko Mbengue Junior Boy Balde dina ko doomu daanu dina ko doomu daanu Mbengue Junior <laughs> Assane Ndiaye Mbengue Junior Boy Balde ña xeex fàq na ko lu mu koy def da koy dóor <laughs> jëlaat na ko Mbengue Junior Mbengue Junior doomu daanu waaw waaw lambi góor <laughs> lamb de neex na ba noppi Boy Balde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 la moo xew. waaw daan nañ ko ba pare. fan la daanoo daan naa ko fekkaan ak ñu waa tam jëmaat ko fi. béykat lan la. non. béykat la pare dañ ko béykat lan la. Bakel am na. arbitre bi ñu def du yoon. non non booy daanu bu dee suñu baax daw na jël am na man maa ko wax bi lay jël am na jël am na bay bala fay naa la. billaahi liyu dara liyu dara ci man man xale bu ndaw laa wax la ko su fekkee man mun maa humilier Mbaye Gueye jël mooy tax ngemb man Baldé Baldé pire laa di doomu Casamance ñaari góor mu sukk jur ma ñetteel leen lamb dama ci am wàll dama ci am wàll bu baax a baax a baax ku ko xam dama cee ku ko xamul ma cee bokk. mais lu bu métti ak ak ak Mbaye Gueye Junior taxul nga dellu ginnaaw. waaw man eh, da ngeen a ñemante. dama ne la dama ne la kuy wax booy pare taxawal bu abi sifflé ah wala dëggal sa bopp boobaa maa xamut man xeex mu ma gën a kaa lekk nan ma si sama waay yu xam nga ma wax mbër fekk ma ne xale bu daw de boo ñemee da ngay dee. soo a da ngay dee koo ñemal te dee benn yoon man sama papa moo ma formé yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana maa ngi bay bala bay bala boy balde ñu gis boy balde waaw xale bu ndaw laa ñëpp laa yéene jàmm ñëpp laa yéene jàmm maa ngi gërëm ñëpp ñi ma jàppale ñi ma jàppalewul ñi ma daan jàppale gisuma leen aduna mooy demee noonu doomu aadama sax du laa jàppale du noonu ki la daan jàppale bu démb bu la daan yaa démb la démb tey bu lépp sottee da nga gërëm ko maa ngi taal ñëpp loxo tundu jandeer Sébikotane Casamance ñëpp maa taal loxo wallaahi azim defaguma dara ci làmb. boo boo jógee fii foo jëm booy ñëpp bàyyi ñi fi ñëpp bàyyi man ñoom laa soxla. mooy ñan. mag ñi xale yi ñi muy Tidiane Faye man ak Tidiane Faye combat la. wér xam yi ñemuñu Ndiaye Tine rakk Tapha Tine man moom combat la. ñeme nga ma lekk ba saxandi ko. Ah xale xale bu ndaw laa gars yi fii xoolal am nañu bëri yoo xam ne dañuy jox avance booy bal ñuy retu naa booy ma gis ne lamb ji jëlee woo ko stress parce que rek ne ma matu moo ne nga ne ma lamb ji jëlee ko stress boobu ma matu boobu maa ngi doxantu ji sama oto laa jël sama oto laa jël promenade di wër Dakaaru di wër Thiès